Balla maa ngi lay fay bu baax jaal mbuub tey ñu ñëw fekk la fii ci euh, arène nationale tey diggante Gora Sock ak Fils de Balla waaw waaw gisoo stade bi ni mu mel moo lay won ni xale yi nit ñi bëgg nañu seen combat non seulement ñoom ñaar Fils de Balla ak Gora Sock mais combat yiñ ci toftal yëpp a neex boo ko xoolee nga xam ne vraiment xale yi ay jàmbaar lañu e eh, Gora Sock ak Fils de Balla nag ah, yoonu dem sa yoon a nii nit nag day am fulla fexe koo eggale rek dem sa yoon Gora Sock fi mu nekk yàgg na fa yàgg na fa lool na jéem a xool num ci génne Fils de Balla gis naa open press am géejëwee gépp génn doon benn ah loolu tamit rafet na vraiment yaakaar naa ne daal combat bi dina ne am naa ci yaakaar ñu gis Gris Bordeaux ak Balla Gaye bëre ba pare après le combat ñu gis ay supporters wala ñoo xamante ni Fass la ñu dëkk Gris Bordeaux la ñu bëgg Gris Bordeaux jël défaite après Gris Bordeaux façon baat bu ne dégg na ko ñu traité ko de tous les noms est-ce que supporter noonu la war a comporter woo. non supporter supporter boo ko xasee ba doon supporter ka da ngay dem mu neex wala a xari bu dee ci équipe la doo bàyyi équipe ba man équipe ba ma doon faral léegi mi ngi troisième division gendarme de Dakar la tudd waaye moo ma gënal équipe yi nekk Sénégal yëpp te dañ koo gañe ba mu yegg foofu bu dee ci làmb bu nu daanee sa mbër da ngay xam ni ki ko daan da koo man daan ko sa mbër daana man di daan cest nag da nga leen di comprendre ñoom tamit ay nit lañu te li ci bëri ay xale la lañu xamuñu sport fan sa la lañu xam du duñu ay amateur amateur ngay daan mbërëm mu dem ñibbi noppalu jooy li muy jooy bu dimanche mu ñëwaat ci làmb mais fan sa club ñooñu àndoon ak Gris Bordeaux 40 pour cent bi ou cent bi dootoo leen gis ci làmb tant que Gris Bordeaux bëriwul donc ñoom Gris Bordeaux la ñu bëgg ñenn ñi ay Fass la ñu bëgg Fass bu mbëru Fass di bëri ñu dem bu mbëru Fass bëriwul duñu dem ay fan sa club la. e ñu am xol bu jeex waaye nan xam ni tam seen mbër nit la day bëre di am bànneex daan na bégal ay nit keroog ba muy daan Bombardier ca ca ña ko doon gunge laa bokk en tant que journaliste waaye mbooloo ma ko toppoon ah keroog ba muy daan Tyson mbooloo ma ko toppoon keroog ba muy daan Baye Mandione damaa tëggoon làmb ji mbooloo ma ko toppoon na nay xalaat loolu kim doon bëreel kim doon bëreel mën naa daan ku ah. ah waaye itam kim mu doon bëree la daan ñëpp moo daan ñi kenn daanu te ñi mu daan kenn mënu leen a boole daanandoo leen na comprendre loolu. daan yëkk ni ci benn tàkkusaan ñaari jël. mu ne ko. ma ne daan yëkk ni ci benn tàkkusaan ñaari jël. waaw daan yëkk ni daan Tyson daan Balla Gaye daan Moustapha Gueye daan Tapha Tine Modou Lo Balla Gaye loolu ku ko def mais ndaanaam mais ñoom ñaar dañu simmeeku ñu bëri ci axlu làmb dañ doon critiquer seen état de physique yi. dañ koo war a critiquer. mais est-ce que Gris Bordeaux bu 97 ak léegi wala Balla Gaye 2005 ak léegi est-ce que mën nañu nekk. Euh, ay Balla xam nga man ay cinq mois ngi waxuma ci réseau yi <laughs> bi nga ma wax loo tey ñi leen di critiquer dañ leen a war a critiquer ñoom xam nañu bu ñu tëddee seen néeg Balla Gaye bu tëddee néegam Gris Bordeaux tëdd néegam. taxaw ci seetoom xool boppam dina xam ndax Balla Gaye bii mooy Balla Gaye ba doon bëreeg Modou loo wala mooy Balla Gaye ba doon bëreeg Eumeu Sène Gris Bordeaux bu taxawee ci seetoom xool dina xam ban Gris Bordeaux moo taxaw critiques yi ñu leen di critiquer yoon la sport moo mel noonu yow mii Baye Balla des fois nga wax dara nit ñi critiquer la man noonu keneen noonu donc ñoom loolu mooy seen métier dañu ay sportif la mais bu nu amee melokaan boo xamante ne nii doyul nit mais il faut ñu critiquer leen léegi nag li koy faj du dara dem defaru parce que bala li nekk ci kanamam du ñeexu ne bien. Ah. ci fin saison la ñu jëm suba moom mooy dernier jour ci saison bi naka nga jàngatee saison bi. saison bi neex saison wu xale yi la la jeunesse gis nañ ci yu bees. waaw gis nañ ci yu neex gis nañ ci Moget ñëw na ci gis nañ ci jàmbaar Wrestling ñëw na ci gis nañ ci yeneeni combat yoo xam ne am na ci ay combat yu mag nan sant yàlla rek te dem ba ci kanam léppay baax bu soobee yàlla. Gris Bordeaux ak Balla Gaye seen de lutte bi liñ leen dagg dafa liñ leen dagg dafa bari ci combat bi. ah non ñoo tooj. Ah. ñoo tooj.